waxtaan bi ñaar la benn bi mooy waxtaanee li nga xamante ne mooy élection yi ñu weesu mu am ci li nga xamante ne mun nañ ko tuddee scandale national li nga xamante ne ñépp ci loolu la ñu wax te boobu ba léegi kenn waxu ci suñu posé liste teg ko liste yépp a war a jaar yoon dañaa gis ne jour élection bi préfet dafa def erreur wala dafa bokk ci liñu mëna mën scandale wala trucage wala sabotage wala complot lolu lañu bëgg wax mu lèr manam soo leen xoolee suñuy liste bala lolu sax veille élection bi bu né nee élection dafa am ñu jug dugg ci dëkk bi di joxe benn rumeur ñu naan Ahmed Diallo du nek candidat Pape Diouf lay jappalé di dugu di wax loolu ñu ne mais li fu mu am ñaay kan yëpp a Ni def ni ñen ñi wax li ñen ñi si ñi nga xamante ma xam leen ñu naan du nek candidat parce que carte d'identité carte France la donc dawal loolu veille élection yi jour élection jot ñu ñëw fi centre bi gis lu doy war moy

ñoom Amdi Lo ñoom Assou Ndiaye ñoom mbay Diouf ñoom Sala Sène ñoom mbay Dieng ñii nga xamante ne bokkuñu si ñun ñu jël suñu liste yi jaxase ko liste lii nii musul am senegal scandale gënu ko rëy mooy liste proportionnelle bu benn Bokk Yaakaar lañu jël effacé suñuy list def ko si waaye yemuñu foofu bu ñu defee loolu pare ñu ñëw gis ko si hôtel bi ñu jël liste yi dugg si dëkk bi

utiliser li mu nek erreur préfet wala tayeefu préfet wala complot préfet bi nga xamante lolu lañu utiliser wat dugg si bi toogloo suñu militant ne nekk suñu candidat ndax suñu liste mu ngi ni ñom nitu Pape Diouf yi lañ ci def wa yamuñ si lolu, bu ñu paree si loolu dañu continuer dugg si bi di yàq der di wax ni li ñom xamone nañ ko dañu waxtaan donc lolu non yëpp la nous bëggoon partager avec lan la jour élection parce que sans kuy da nga xam ñoo liste bi on ñëwee nga Conté, tête de liste proportionnelle moo la tax nga 10 sur suñu liste gisoo ci nga mais yow liste, ko yow tête de liste proportionnelle gisuma la si mu nekk expliquer voté suñuy investir tête de liste euh, liste proportionnelle ñu ñëw xool gis ñu seen tur commencé woo di mer ne yéen lii ngeen ñu waxoon da ngeen newoon da ngeen ñu investir naka la da ngeen ñu doon nax donc découragé plus de 31 personnes et 16 personnes yu nga xamante ne normalement si liste bi la ñu waroon nekk te ku si nekk si ñoom di leader ku si nekk si ñoom waroon concentré wu pleinement ku si nekk si ñoom waroon indi des centaines de personnes waaye loolu yëpp ñu gis ñu seen tour war a def élection te pourtant ay candidat lañ comme ñëpp donc loolu bu vote bi commencé ba mi journée bi lañ ko gis mu amoon benn solution soit arrêté vote bi yëpp annulé vote bi élection préfet gaa waxtaan ak moom ñu ne nañ bàyyi mu continuer nañ ko réglé mais réglé ko moo doon annulé élection yi ndax si suñ ko annulé il faut ñu demaat modifier erreur bi yóbbuwaat ko si imprimerie mu imprimer ko te loolu mun na jël ay jours donc vote bi n'était pas sincère continué nañ ko dans des conditions yu nga xamante ne loolu du élection

man maay ñëwee naan damay and ak Macky Sall wala ko and ak Macky Sall su ma bëggoon and ak moom dem naa bu yàgg donc ma répété ko Benno Bokk Yaakaar ànduma ak ñoom président Macky Sall ànduma ak moom te duma ma and ak moom mukk maa ko wax. donc y en a qui disent waruñu ko wax mais je m'impose cela pour ne jamais le faire parce que nekkul lu baax si lii ñu bëgg tracé pour Nguekokh te lii ñu bëgg tracé pour génération bii di ñëw si wàllum politique.